mbokk auditeur rajo Oxygène ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam dellu si waat nañ fi tey jii comme niñ koy defaree altine bu nekk ci diisoo ngir aaru di émission bi nga xamante ne rek ki leen ko euh, digtal euh, moo nekk euh, projet bi di Africa Check ànd ak Théâtre for the Change waaye itam ci jàppandalu financier bu Google News Initiative mu nekk nag théâtre radiophonique bu ñu fi amal altine bu jot ci bu juróom benn waxtu ci ngoon jotee jàpp juróom-ñaari waxtu sur la 103.4 la rajo Oxygène te ñu di ko rediffuser nag dimanche bu nekk ci bu fukki waxtu ak benn jotee jàpp midi dimanche bu nekk lay lay doon ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen wax ngeen dal ak jàmm euh, tey jii nag ñu bëgg leen dégtal fukk ak juróom-benneelu épisode ci bile euh, série théâtre radiophonique thème bi ñu namm waxtaanee tey nekk ndax ndoxu géej mën naa faj euh, Covid 19 loolu mooy thème mu bëccëg bi. nga xamante ne rek dinañ ñëw ak yéen eh, ci kanam tuuti di leen fàttali rek ne tey jii am na ñu ab invité comme ni niñ koy amalee rek saa su nekk tey nag ñu fas yéenee dalal ki nga xamante ne moo di docteur Edmin Diatta nekk médecin généraliste bokk ci ñi nga xamante waaye dafa fësoon lool rawatina ci bi mbas mi di doog a dugg si fii eh, ci Sénégal mu nekk fële ca hôpital Fann eh, ci di jàpp 2020 ba 2021 mu nekk itam ki nga xamante moo jiite promotion sortante bu médecine professeur docteur Moussa Seydi ñu di ko nuyu bu baax a baax kon moom docteur Edmin Diatta euh, docteur maa ngi lay euh, euh, nuyu. oui Kodou ça va. merci maa ngi lay nuyu di la wax nga dal ak jàmm sur les ondes de la radio Oxygène. maa ngi nuyu ñëpp maa nuyu les auditeurs de la radio Oxygène. maa leen di remercier aussi pour l'invitation. jërëjëf nañ dellusiwaat ak yow ci kanam tuuti ndax yow yaay ganu bëccëg bi tey jii kon ñu ngi leen koy wax sànq ci fàttali rek ngeen xam ne kon série bi di diisoo ngir aaru mi ngi woy ba tey ci fàttali rek li ñuy waxtaanee moo di histoire Modou. mu nekk donc fecckat bi nga xam ne dafa waroon génn réew mi ànd ak troupam waaye mënu koo def ndax ñàkkuwul li ko teree ñàkku nag mooy ñàkk gëm euh, feebar bi nga xamante ne rek moo di euh, coronavirus. Euh, kon rek ñuy nuyu tam comédiens yi nga xamante ne saa su nekk dañuy nekk ak ñun ànd ak ñun kon fii ci studio bi dañuy jox rek nga xamante ne moo di technicien bi du DJ Las di ko nuyu moom itam mu daal di ñu noo dëgtal rek épisode 16 bi nga xamante ne mooy li ñu nam waxtaan ak yéen mu nekk 28, episódio 15. Baye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye naka def waay. waaye Ndoye. waay waay maa ngi lay nuyu naka def. Ndoye aw aw daal ba baaxee rek man maa ñëw. waay waay waay xam nga rek nekk man sax xaw tuut doom fi fekk de yàlla xam na ne maa ngi war juróom benn weer laa fa def eh eh ba takku laa fab ñitteel waaye yow man xam nga ne man jaar yi ma yor rek doy na jaar yi ma rek doy da nga defa coono yi maa ngi sant ala ba dama godoy ña nga fa rek alhamdulilah bi ma la gisee waaw waa xala do xew door waaw waaw xanaa wut fu mu sar rek walaay walaay xam nga géej gi waaw géej gi daa bett walaay waaye yow ba ne xam nga ne tey da nga am dawal ba doyal nu ngee bëgg a dex ñetti yaa bay téeméer ba tey jeex na nag tey moom walaay walaay booy jëbi di nga yóbbu dawal ba kontaan ah waay a sa xarit teer na ah, waaw saari teer amul xarit amul aan dara waaye xam nga rek dëkk bi fan yii dafa xaw a métti bi jàpp nañu rek wax leen yàlla sonal leen sonal gu métti métti métti moo sonal nit ñi de waaye nag gis nga a bi ah. walaay dañu déglu waaye ba de xam nga ne ñun bool yi dañoo am suñu feeb ndoxum géej bii ngay gis nii. ndoxum géej mi jël ko rek nga jar saraate ko ci jet yoon dafa jet yoon rek boo defee jet yoon boobu coronavirus bu fekkoon mu ngi ci bu dee ñëwagul dund ko. waaye aw waxati naa la. waaye yow xam nga ne man li ma wax nii. ah yow ay firnde yu leer daal dinaa ci am. daa la xëy mu sirax nde ko ñetti yoon. ana xam ne fa ci soriwul. déedéet walaay gaa ngi nii dangay dangay Eh, duy ko ba mu fees ñu yóbbaale walaay duyal yóbbaale de boo demee gore yu sarax di ko ci madame sarax di ko ci bu ko defee coronavirus du leen jege fen fen fen fen fen fen ma ne waxuma kii de wax xama la moom baa ko waxee benn mu def fukka ba ma demee sarax ndi ko ñetti yoon def nañ ko ba la bëggee tàggoo moom sama xale yi doon def de waaye bàyyil ma ñëw dem déedéet déedéet kañ dem xale yi jox la dabal balaa ngay dem ah, waaw kay dañ dem waaw Fanta Fanta. naam ni jaay. baa de bëgg la maa ngi nii doon dem de. pare woon naa ba pare. maa la andi ndawal la baax a baax a baax a baax. ndawal. mu ngi. <laughs> yoo xam ne xamoon ni tey ceebu këccax laa naroon a togg. lan si dama si doyal ala dama soona si ñetti yabay téeméer. yow daal nijaay. Ah. ku la am jël. Ah. ku la ñàkki duuti la yaa eh, eh, eh, maa leen gënal. sama séeréer maa leen gën. na persika ba mu tooy. tey de laa lay toogal ceeb bu amul fen muy da mbay bu ne muut laa lay toogal. waaye nag maa la andil la gën a neex. lan moo gën a neex lool nijaay. gisal lii lan la. <laughs> lii de ndoxum géej la. très bien ndax suuf si aussi gis si bi. waaw merci beaucoup da ngeen ne ndoxum géej dafa faj <laughs> sama nijaay. ah yow daal ceeb bi neex na rek na ne nañ ci def suul. ah maa ngi géej moom nan lay fajee coronavirus. man daal nduwee la ma fekk faa mu may ma ndaawal ba pare na ma kaay bal dem maa la joxob yóbbaale xanaa xam la ne corona bi ñaa wax ni ndoxum géej dakaa fecc. <laughs> nijaay bii moom ànduma ci moom. te nag du aaga rek kii de baa ko jëlee daa see sirax ndiku ñetti yoon. sirax ndiku ne koy jàpp. déglu ma fi aw ba ba apollo faa jëm. xanaa géej. baa koso kosaa nag fan laa jëm. nijaay ah yeneen ak yeneen ak yeneen ak feebar yaa xamante ne nii du xem gi da kaa faj nijaay loolu suñu maam yi ñoo ko daan def fi mu nekk nii dëkk bi ci boppam moo évolué te nekk dëkk buy dox da ngay dox ànd ak moom comme wax nañ ne ba si serandiko ñetti yoon doo am coronavirus gune yi nee ñëw en serandiko soxna dem yaay ñëw leen wuy seen baay papa dañoo xew dama na xew gis neen ndox mi ala ndoxam géej day wax ne ka si ko ñetti yoon doo am coronavirus dékk leen seen loxo man laaluma ndox bi de. la tax. parce que man gëwuma lii lii dafa amoon nga naan ma ay corona. bàyyil gëwuma lii. eh aw dékkal waay kii dax dëgër boppa dékkal. papa am sama mburu ndekki. mburum ndekki mburum ndekki lii ka jiitu. balaa wax mburum ndekki dafa la wér. te corona bi bëgguma kenn mu dal la si kër gi. waaw papa lii nan ko utiliser. eh lii daa la sotti sa loxo ba mu fees uteen u sirax ni ko u defaat uteenaat u sirax ni ko ba mu la ñetti yoon. coronavirus doo ko fi am. acca dëkkal. papa bal dafa kii lii waaw. lii waaw bàyyi la waay bu tey na médecin da leen wax lii ba nga naan lii day faj bu defal lii Binta. papa man dinaa ko def mais danga koy teg fii après bu ma paree léegi dinaa ko utiliser. baax na rek la ma wax rek yéen ki kii eh, am ay fant am teel. bu tey papa dinaa ko utiliser. sa papa daal en tout cas du wax daara ma teg ci baat li mu wax def leen ko. ndax seen papa du def la nga xamante da leen di lor. man def lu leen di aar dong lay def. man defuma man defuma ndoxu géej yi. man bañ ko ba man damaa bañ ndoxu géej ba duma dem sangu ji géej ngeen ñëw ngeen ñu sonal naan ay coronavirus ndoxu géej da koy faj. papa man amul benn ab après dinaa ko jël def ko comme ni nga ko waxee. man de pere na ma si de yéen a bëgg seen ak wér gu yaram benn tene yéen lañ teneel man de dina ma ko def ma sa yaay. ah kii sama jarbaat la. waa tonton Momar Ndoye. ah da nga def bii nga bàyyi ak ci jàmm. Ndoye Ndoye Ndoye maa ngi nii maa ngi ci jàmm. ñu cant yàlla rek di kurti kurti. ay yow gëj naa la gis de. wax nga dëgg xam nga man géej gi rek. walaay damay dem campagne def fa juróom benn weer jëwaat. loolu moo tax dëgg la dëgg la man keroog sax ba ma tasanteeg sama tante daf ne ma woon da ngaa demoon campagne. dëgg la dëgg la wala des fois yàlla day dogal de. damay nekk ci kurti kurti yi ba du ma tànn seen noppalu dëgg la kay papa waaye papa foo jógee xanaa géej nga jógee waaye balaa géej laa jógee di de ndawal li laa bëggoon yóbbu kër ga balaa bay delluwaat wax nga dëgg waaye bi teelu ndox bii nag nga tee beneen loxo bi diis na de ndox bi dox géej la dox géej la xam nga xam nga taay boobu coronavirus bi dafa lëbbee dëkk bi ah. sore di ñun lool sax léegi nag xam nga ñun moom yàlla dafa def da ay mag lañu te mag moom daa yàgg ak yàlla ñu wax ba tamit coronavirus bi daal dox géej bi da faj boo ci tarani ko ñetti yoon boobu da ngay tàggoo coronavirus bi boo daa bari ba jël butel bi yóbbu ko kër ga boo defee njaboot gi yëpp def ko ay papa yow fan nga déggee information boobu. ci kii bi laa ko déggee duñ koy waxatee de xaw Facebook xaw ma la koy waxee Facebook bi waaw. waaw ba pare sama benn ma ko foofu noonu laa ko déggee rek. ba bari xaaral ma yóbbu ko eh, njaboot gi. yow tamit xam nga ne maag yow ñoo dëkk man maa ngi ci sensibilisation yi chaque jour maa ngi dem ci réunion yi di xam luy xew ci coronavirus man nga ñëw ma sax boo déggee information loolu noonu ñuy wax amul. abi ki ma ko wax nii waa loolu xam nga ba coronavirus ñëwee ba léegi ku nekk dangay toog sa kër di bind lu la neex wala ngay wax ci lu la neex ci coronavirus waaye man mii dem ci ñoom di dugganteeg ñoom di génnanteeg ñoom man xam naa bu baax liñ ma wax muy ndoxum géej fajul coronavirus. ah yow de wax dëgg yàlla yaa ngi ci terrain bi boobu ba léegi yaa ngi wër ci sensibilisation yi boo ma waxee lool moom xam naa ne moom wax dëgg yàlla dinaa ko xoolaat. papa man sax li ma jot ci ay information yu wéru ba coronavirus commencé ba léegi dafa bëri tey. ñu ne tàngaay bi day faj coronavirus suba ñu ne ñu eau de gannaaw suba ñu ne ñu laaj gis nga foog ñu bàyyi suñu xel ci li ñu def gis nga ku moytul information buñ la jox nga def ko di nga lor sa bopp ndax lii ñuy abusé nii mën nañoo indi loraange de papa. bari bige yàlla xam na ne li nga wax ni dëgg bu wér pegg la boo tax man xam naa ne moom damay yóbbu kii bi kër ga rek. après ma wàññeeku bu ma demee ma dem ci Baye Ndiaye parce que joxoon naa ko xibaar bi te xam naa dina ko yóbbu këram. kon baax na papa man moom seen jàmm yaram rek laa bëgg. bari jërëjëf yàlla yàggal yàggal taxawaay xam naa dinaa ñëw seet si sama tante. incha allah jërëjëf waay bii nga kon doy ma sa papa dégg nga. jërëjëf papa ñu def loolu. sama papa moom bu indee fii benn affaire boo ko deful mu nekk di wax te man dama fàtte dosage bi lu ma waxoon ñaata yoon ngay utiliser ndoxum géej bi pour ko mu mun a faj coronavirus bi xamatuma sax ñaata la wax ah man daal man maa ngi def léegi mu sentir sama papa si boppam boo deful day ñëw fii di wax xaar rek man nu ma def baax naa yaa ngi génnee ndox. Ah, ah. waaw mais yaay yaay papa bi ngeen fi indee seen ndoxu géej ba léegi maa ngi leen di dégg. mais su ma waxatee ngeen na dof bi waxati la. mais papa bàyyi leen affaire coronavirus bi. <laughs> déglu ma la ba kii ndaka de sirax ndikul mu sotti ki si bekkedam. papa li faju coronavirus lii moo faju coronavirus. mais moo existé bu la ñu soral. coronavirus am na waaye lii faju ko waaye. <laughs> ma ne yéen ñaar ñii dimbali leen nit ñi. kii ko yóbbu hôpital moo gën seen wax ju bari papa lii lan la waaye dimbal leen nañu yéen a ñu sonal waaye. massa. salaamaaleykum Baye Ndiaye. waaw naa waxatee waay Baye si jàmm eh, eh, maa ngi jégalu de. billaay du dara. damay doon dem sama kër. da laa daje ak waaw xibaar ba ma la jox sànq doon doon ba ñu nekkee boor géej. waaw. ah bi werul de. ah ah, ah, ah. bi werul. li xewati. biige laa dajeel boo wax de. Ah. xibaar boobu ma jox dara weru si. waaw te man man man jël ko sotti ko si bekk a dem laabi sii ah, da gi. Binta moo ngi nii sonn bay bëgg a dee léegi après na tasante naag bii ngeen nee na ko man su ma la waxee dara dee que man chaque jour damay xool surtout bi di lire ay information mais su ma waxee rek ngeen ma tubaab bu ñuul laa waa baax na. c'est que xoolal papa yéen yéen a war a bàyyi coronavirus bi ngeen di gëm. Ah. loolu la loolu mooy wax ji. kii daal uy lii si lii yaayam wax la maa def dañ euh, leen ko hôpital. yaay sonn naa yóbbu leen ko hôpital. Fanta ma si kii. Massa nañ dem. et puis papa xam nga lan la. information ay coronavirus. téye leen ko bu mu duggati ci kër gi. yéen a ngi bëgg a yàq kër gi nag ndax coronavirus coronavirus mi ngi ñuy bëgg moom. te coronavirus nag waruñoo moom beneen bi ci des coronavirus bu ñu nag moom wax dëgg <laughs> bañ koo gëm sax dafa gën ah. eh, gis na aw ba mën maam biir a aw ak maa bëgg a fata eh, aw meetuma ah bari baa baa lay jégalu bu baax baax yàlla xam naa ne tam ba bu baax baax jégalu amu si ah kon baa ñëw ek kër ga xam naa ne xam naa ne kon ba ba aw daal demal rek ma ne ba ma xam naa ne foo kere in yóbbu ko hôpital rek

jërëjëf kon yéen ko déggandoo ñuy jaajëfe bu baax ñi nga xamante ne ñoo joué kon ci épisode 16 euh, bi xanaa di fàttali rek ne benn numéro rek la euh, mu di 77 424 94 73 ngeen mun cee dugg rek daal di mun a euh, envoyé message whatsapp bi nga xamante ne tam mooy tax ñi nga xamante ne ñoo di ndaw Africa ki yi mun leen woo ngeen daal di participer donc ci émission bi di leen fàttali rek ne question semaine bi nag mi ngi noonu mooy ana lan ngeen di wax ñi nga xamante ne jàpp nañu ne ndoxu géej mën naa faj wala mën naa sax aar nit ñi euh, ci euh, Covid 19 bi kon ngeen mën a réagir ci réseaux sociaux yu Africa Check yi mun ngeen cee bàyyi seen xalaat ak seen euh, li nga xamante ne moom ngeen ci yaakaar dinañ ci mën a dellusiwaat bu baax a baax ak yéen kon mu mel ni ñi ngi may xamal ne am na auditeur bu nekk ci ligne bi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ bi naka nga tudd ak fan ngay woote man la eh, Omar Cissé maa ngi woote ginnaaw raay Pikine. Omar Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax dama bëggoon a eh, wax ak eh, góor gi Ndoy. góor gi Ndoy. waaw góor gi Ndoy laa bëggoon waxal. fan nga bëgga a waxee ak moom mu mel ni kon yaa ngi doon suivre émission bi. maa ngi koy suivre kay dama bëggoon wax ak moom ci foofu mu nekkee ci euh, muy wax ak euh, femme yi ne ko ndoxu géej euh, voilà mun na faj dara ci mbirum corona. kon nag ñuy may rek comme ni niñ ko xamee kon xam nga principe bi ndax yàgg nga di déglu émission bi bu ñu joué rek ba yàgg fa da nga naan stop su ko defee ñu mën a taxaw nga daal di mën a waxtaan directement ak moom ndax loolu mën naa nekk. waaw jërëjëf. kon ata ñu dem. ah Badiaye. boo paree Baye Ndiaye danga def waay. waa kii du Ndoye. Ndoye waay maa ngi nii waay. waaw la waa xale du xew noor. waa xanaa wut fu mu tër rek xanaa maa ngi di nekk ci géej gi rek wala walaay. Ndoye aw géej na fa laa gis de. wala géej la si kii bi si mi xam nga fan yii dama demoon campagne te boo demee campagne xam rek da ngay def weer ak ay ñaar weer lu teg walaay walaay. waa kon Ndoye xanaa dinaa ma may ndawal. waaye tey moom bul wax dara di nga am ndawal ba doyal waaye solo leen wit wit wit wit wit waaye xam nga ñun da doo dégluwul ñun kii ñun ñi nga xam ne ñun ñooy mbool yi wala bu ñu déglu ah. xam nga ni coronavirus jóge yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg li xew foofu laa a wax xanaa xamoon ne eh, ànd kii Ndiaye Ndiaye ah. doom ah. dafay faj coronavirus doom géej foofu laa bëggoon a wax ak moom waaw kon bu beneen yoon ne da nga naan stop boo nee stop rek ñu daal di taxaw su ko defee nga mën a wax directement ak nga xamante ne moo di kon comédien yaa ngi nii nekk ak ñun. bari bari Cissé. Cissé. waaw ma ne xam nga xam nga géej gi. doom géej gi gis boo ko jëlee boo ci sarate ko ñetti yoon yàlla day dogal ne moom doo coronavirus moom du la dal ba pare eh, boo amee dafay wér. ah yow. yow moom nga walla docteur nga. ah man moom laa waaye nag ah, xabaab moom wax dëgg yàlla soriwul. xabaab ah, xabaab yàlla daa dogal soriwul de. bari loolu bari xam nga ama mbirum faj moom yàlla daa dogal ne moom ah, faj moom soriwul te xam nga ñun moom mool yi dañoo yàgg ci dañoo yàgg ci kii bi xam nga doom géej bi dafa wex doom géej bi daa wex xat te xam nga coronavirus nee lu wex xam naa ne mag nga ndax xam nga ne di wax li la ci mbirum ah, docteur ndax xam nga ne loolu mën nga see dem kaso. bu dee dëgg wax de nga lan. ma ne xanaa xamuloo ne wax lu la wóorul ci mbirum docteur mun nga tee dem kaso. bari bari xawa dafa daag si sa xalal ba li ma lay wax ni sama benn xarit boobu ko wax de sama benn xarit boobu ko wax te boobu ko waxee tamit essayé naa ko waaw. nekkul yow yow da amoon corona ba nga essayé ko nga wér. déedéet man xaw ma man mosuma am corona de mosuma am corona mais moom da ko capturé déedéet ci whatsapp bi xaw ma foofu la ko jëlee doon mu xaw ma ci tiktok bi mu envoyé ma la ma waay waay waay nee na nit booy wax da wax li nga xamante ne lu wóor la xam nga mbirum wérgu yaram loolu dee su ko caaxaane dee su ko foowee bari jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfee bu baax a baax wante sëñ bi est-ce que li nga bëggoon def nga ko wax nga ak euh, Ndoye ndax yaakaar nga ne li nga xam ne moom nga bëggoon euh, jot nga ko atteindre nga sa objectif jërëjëf kay man li ma naqari rek moom mooy naka la nekkee mool ba noppi bëgg ne docteur la loolu moo xew ci réew mi te loolu baaxul ñu di la jaajëfee bu baax a baax kon lii rek moo ñu tax a jóg maanaam déconstruire lépp loo xamante ne rek xibaar la bu wërul ñu di ko dégg boobu ba tey euh, ci réseau sociaux yi nit ñi di ko partagé te mu nekk loo xam ne du lu wër loolu mooy li nga xam ne moo tax a jóg émission bi di diisoo ngir aaru kon damay rek dellu ci nga xamante ne moo di suñu ganu bés bi di docteur Diatta docteur ndax yaa ngi ci ligne bi allo. oui allo. docteur kon mel ni yaa ngi doon déglu épisode bi boobu ba léegi ndax mën naa xam rek ana lan nga jàpp ci épisode 16 bi lu mu doon. maa leen di nuyu euh, lu ma jàng moom c'est que dafa bëri ces informations bu am ci mi surtout dans le cadre gis naa ni ñu bëri ku nekk da nelaw yeew créer benn information ensuite avec la marine de Tampay dañ koy jàllale parce que ndox géej da day faj wala da lay aar loolu premier point d'interrogation beneen jàngat bu ma am na ñoo xam ni ba léegi gëmuñu ni corona am na donc premièrement par rapport euh, euh, ndax ndox géej wu day day faj corona wala day aar ah corona mhm. wala du la aar boobu jàpp naa ni lépp problème parce que ndox géej ndox géej fajul korona aarul si ko aucune preuve kon daal ñu mën a jàpp ne boobu ba léegi amul lenn loo xamante ne def nañ ko ci étude lu mën a firndeel ne ndoxu géej mën naa faj coronavirus coronavirus amul benn étude bu ñu def bu firndeel bi mën naa faj coronavirus wala mën naa aar si corona loolu amul maintenant gëmuñu ni coronavirus wala amul jàpp naa ni coronavirus feebar o yeneen feebar yi feebar boo am man mii di wax yow nekkoon naa ci CTE de Sédhiou xam naa peut être li nga ko liir nekkoon naa ci CTE di faj ñuy am corona donc loolu am na. docteur balaa balaa balaa ñuy sori nelaw yeexu ne la comme mhm. keneen comme nu ñu ko waxee comédien tamit maa leen di gërëm de passage nu ñu ko waxee am na ñeneen ñoo xam ne dañ naan dox jàng da lay da lay si corona laaj bi da lay faj si corona institut bu nekk yi nekk yow rek créer benn information après information yàlla communiqué loolu war na mën a def bu nekk da ngay nekk yow nga doon loolu tamit comme ça ñu di mën a jàllale la yëpp ku nekk jot information bu baax. Euh, jërëjëf docteur mu mel ni yaa ngi koy wax léegi sa biir wax mel ni nekkoon nga foofu ca euh, Ziguinchor ndax mën nañ xam rek foofu naka la askan wi accueillir nii di Covid mi par rapport ak seen perception lan lañ ci mën a jàpp. pas Ziguinchor mais c'est c'est Sédhiou dans la régionale de Sédhiou foofu noonu bon au départ comme comme corona ba mu tàmbalee parce que c'est 2020 ba mu tàmbalee am na bëri ñoo xam ne gëmuñu woon ni feebar bi am et on les accorder le bénéfice du doute quand normal ñi ñu xaw a douter ñu xaw a mais en certain moment gars nañ feebar bu am feebar bi mooy rey nit ñi mooy te day wàll nit ñi dem nañ boo benn instant ñu rendre compte feebar boobu lu am la comme yeneen feebar comme ni ngay gisee palu ni ngay gisee euh, grippe et cetera et euh, ndax mën naa xam rek ana lañ nga gën a jàpp ci épisode bi nga xamante moo di épisode seet bi nga xam ne moom lañ doon euh, suivre léegi. lu ma gën a jàpp ma gën a jàpp mooy keneen mool bu jóge géej ñu nekk mu mu commencé di information naan soo géej day aar si korom ainsi de mu jàllale information bi mu bëggee imposé loolu noonu waa këram mu naan day aar ak ndaw géej loolu tamit beneen problème parce que au moins soo jotee benn information quel que soit fu ne fu nga ko jotee sa xarit wala keneen pousser les entreprises kii nii de la recherche sa xool da information boobu dëgg la wala du mais malheureusement gars yi dañoo am cette paresse intellectuelle au lieu nga pousser information bi da ngay contenté aussi li nga te loolu laa ko sax ci ci biir waataan bi ñu bëri ñoo xam ne dañuy dégg rek ñu naan soit on on gëw ma ko gëw ma ko wala dañuy naan gëm naa mais du ñu dem au delà de ça pour ñu xool ndax information boobu nag c'est réel ou jëf docteur ñu ngi koy wax itam sànq ci sa CV gis nañ ci ne ci atum 2021 ci weeru février dal di nga woon diriger lu mel ni campagne de sensibilisation jëm ci Covid bi ci yenn ci ay gox gox goxaan ci mel ni Ndakaaru waaye itam fële ca Gueule de Fass Delorme Médina ana lan moo taxoon ngeen taamu yooyu la gox ndax dafa fekk ne yëf yi foofu la gënoon a wulee ñaay wala lan. pour pour kii boobu noonu pour campagne de sensibilisation. Je rappelle que c'était organisé par la, naan la promotion de médecine 2021. Du OIC sur promotion professeur Moussa Seydi. moom lañ ko tuddee moom lañu tuddee suñu promotion mooy promotion bi euh, donc daara ñuy jóge ñu pare seen jàng di daara bu gën a kaw mooy université Cheikh Anta Diop léegi ñun tamit dafa utile à la population surtout ñu lutter contre ces désinformations ñu sensibiliser la population sur l'information et sur les moyens man nan nga mën aaru si coronavirus dañoo décidé woon wàcc si terrain bi mais si terrain bi gis na fii nii tax euh, yooyu noonu fii nii côté bii nii mooy Fass Gueule Tapée et cetera mun nañu atteindre beaucoup de quartiers en même te côté bii nii dafa bëri woon cas Covid donc ñu di wàcc si terrain bi ñu sensibiliser la population d'information d'abord ñu sensibiliser la population nan la ñu mën a si coronavirus sensibiliser la population ci yu bëri soo amee jërëjëf docteur nañ dellusiwaat ak yow donc ci kanam di fàttali rek ne yéen a ngi suivre seen émission diisoo ngir aaru di projet bu Africa Check and ak euh, Théâtre for Change lépp ci jàppandalu Google News initiative ngeen mën a bokk ci émission bi en envoyant un message ci 77 424 94 73 di message WhatsApp su ko defee ndaw Africa Check yi mën leen woo ngeen participer ci ci émission mu mel ni am na ku def ci numéro bi envoyé message asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sañ bi naka nga tudd ak fan ngay wootee. maa ngi woote Yaraax. yaa ngi woote Yaraax tur bi naka la. waaw maa ngi tudd Cheikh Massey Fatma Ndiaye. Cheikh Massey maa ngi lay nuyu bu baax a baax. yow dafa mel ni euh, émission bi euh, xam nañ la bu baax a baax di ngay woote lu bëri. kon ñu toll ci seizième épisode bi tey ñuy waxtaanee ndoxum géej ndax mën naa aar wala faj li nga xamante ne moo di coronavirus ndax yaa ngi doon suivre donc épisode bi. si lan nga bëgg kan nga bëgg a waxal. waaw man de Baye Ndiaye rek laa bëggoon a intercepté bi mu amee euh, information bi ba ñëw ci këram. jërëjëf kon principe bi xam nañ ko dañuy lay jouer boobu parti waaye bu ñu yeggee ba foofu da nga naan stop su ko defee ñu dal di noppi rek nga dal di mën a wax ak Baye Ndiaye euh, directement ndax loolu mën naa nekk. mën mën naa nekk waaw. kon ñu dem. Fada. Fada. naam nijaay. waaw kaaya waay. ay waay lan moo xewati. ana gu nay. ñu ngi ci biir. aw man daal. information bii la ma a andil gis naa butéel bi ma yor nii wax nañu ne ala ndoxam géej. li kay ndoxam géej la ndax suuf saa may gis si taat bi. très bien léegi nag day ne daxaa faj corona. ay ay ay nijaay nijaay bàyyi li ngay def nag. ah kon daxaa bëgg wax ne man dama. ah oui ah, buuma la dëgg yàlla waaye tey fi nga génnee. ah ah doy na ma la waaye man ba àddina sant njaay ba tay jii nii. ah mësuma dégg ñu ne. ndoxum géej day fay faj coronavirus. da kaa faj daal ndoxum géej. aw mi na toog laa bëgg wax foo. stop. laa ma ne. laa waxu ne. li ma wax daa ko weddi ndoxum géej dafa faj korona allo. kon mu mel ni dégg-dégg bi dafa leerul waaye ñu ngi fexe jokkoowaat ak suñu auditeur bi nekk ñaareelu auditeur bi nga xam ne rek dafa bëgg jokkoo directement ak nga xamante ne moo di bàyyi Ndiaye. su ko defee rek ñu daal di waxtaan jëm ci li nga xamante ne mooy temu tey bi moo di ndax ndoxu géej mën naa faj ndax wala mën naa aar sax li nga xamante ne moo di euh, corona virus docteur yaa ngi euh, donc suivre boobu ba léegi ak ñun euh, suñu épisode 16 bi mu mel ni kon ñoo ko déggandoo daal di nga itam euh, ci li nga xamante ne moom gis euh, ci euh, sa CV mu nekk coordonné nga équipe couverture médicale bu nekk ci màggal bi ñu génn fële ca Touba ca Chikori Daaru mosti mu nekk nag ci jamono boo xamante ne nekkoon na jamono bu tar lool Covid bi di wullee ñaay bu baax a baax a baax ndax nekkoon na lu yomb ngeen dajaloo ak askan wi naka la sensibilisation bi demee woon ci boobu la parti par rapport couverture médicale magal Touba bi couverture bi ça peut être ak quatre ans ou cinq ans maa ngi def couverture magal Touba muy bokk ngeen surtout les équipes bi pare euh, foofu noonu dañoo profitoon pour jël en charge quelle que soit la la pathologie quelle que soit malade maladie lu mu am si feebar ñu jël leen en charge covid bi tamit dañoo sensibiliser gars parce que généralement gars suñu demee ci ay si lu xaaw mel noonu ci activités yu mel noonu dañuy bàyyi yu bëri dañuy con ci fet bi te fet bi mu bu ñuy fet noonu covid bi moo doon jaar wala institution solution dañoo doon sensibiliser gars yi nañu kii ni euh, si sol masque bi gel yi et cetera et gis nañ ni fépp foo xam ne ne mooy si magal Tuuba bi gars yi dal amoon nañ masque balaa ngay dugg feneen foo foo xam ne dafa bëri bool forcément dañu leen naan sol masque ah, bëri amoon na ay ay vigile yu nekkoon si gul wi ñu lay naan sol masque but I, it's not as well as a, waaw jëf euh, docteur Diatta kon ñu wéyandi ak yéen ba tey rek yéen a ngi déglu seen émission diisoo ngir aaru tey jii ñu toll ci fukk ak juróom benneelu épisode bi di waxtaanee tey ndax ndoxu géej mën naa faj wala mën na ñoo aar euh, ci coronavirus benn numéro rek la di numéro whatsapp bu Africa Check di 77 424 94 73 ngeen mën cee envoyé message ngir ñu mën leen a dugal ci émission bi mën leen a ngeen ngeen participer joxe seen xalaat di fàttali rek ne émission bi nekk euh, théâtre radiophonique li ko tax a jóg moo di daal di déconstruire maanaam génne ci xel yi lépp loo xamante ne xibaar bu warul la bu ñuy jot loolu moo li nga xam ne moo ko tax a jot mu mel ni ñu ngi may wax ne am na beneen auditeur bu nekk ci ligne bi allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ bi naka nga tudd ak fan ngay wootee. man la Cheikh Massey maa dellusiwaat. ah Cheikh Massey waaye dafa mel ni sànq dafa rëccoon. dafa rëccoon waaw maa ngi jégalu yaa ngi woon tàmbali ginnaaw bañ la rejoué laat fi nga xam ne foofu nga bëggoon wax ak ak Baye Ndiaye mu mel ni Baye ngi nii ma jox la nga jokkoo ak moom directement voilà mi ngi noonu salaamaaleykum maaleykum salaam Baye waaw waaw man de xibaar bi nga indi si kër gi ah nga baal ma rek moom laa bëggoon ñu wax saan si tuuti ah ndax dafa mel ni dégg naa nga ni da nga sa benn xarit mu ne la ndoxu géej waaw ndooy la day waaw waaw moom moom du docteur waaye ndooy du doktoor waaye ndooy li mu wax neex naa dégg. ndax géej lépp la si dugg bokk si dafa la génnewaat. kon nag bu fekkee ndoxam géej dafa kat dugal ci saw yaram. u sirax ndiku ka lépp la nekkoon ci saw yaram bokk si dafa génne man foo la ma ko jàppee. waaw mais boo ko ci dugalee ndax dina mën a génnaat sa yaram loolu mooy wax ji bu génnul nag mu def effet mu gaañ la. déggu laa mun a baaka sirax ndikoo. sirax ndiku ah, keñ dafa génnewaat. mais xam nga sarax ndikoo ndoxu géej moom dafa neexul dara de te loolu aussi nekkul li nga xam ni. lu ah. avéré la maanaam li nga xam ne médecin yi ñoo ko wax. ma ne garab du neex gis na ba ba lekkee la bare. ba bëggee mu génne dina génne ndax ba jële sa baaraam bu dugal ko ci sa biir gémmiñ daxa kaa génne sarax ndiku nag noo la mel. waaw Baye Baye Ndiaye. waaw man daal bëggoon naa balaa nga xëy jox sa njaboot. est-ce que bàjjenu gox bi. wala relais communautaire yi wala nekk sa koñ bi laaj ko ba pare rek nga soog koy jox sa njaboot. léegi dama laa laaj aw waaw lan moo tax baa sibéro in wax la ne demal sangu ji géej wala baa sibéro ina la seetal kaasab ataaya u naan si ñitti yoon waaw mais ma loolu dégguma ko si médecin yi ah man de ndooy fi mu ko jëlee foo wóor la ah. fa wér la ndax ndooy xam nga tay jii tey man mi nga xam ne du ma dem géej man mënu ma laa wax li nekk si biir géej lan moo tax nag ba nit koso kosa ba la wookatu il naka demal sangu ji géej ah waaw mais déggoo ma ne la xam nga nit ki la ko nekk la muy liggéey yaakaar naa ne moom moo ko xam dama ne ndóoy balka wi waaw man weddiwu ma ma la ndóoy wax ma ne baa koro ba say bët la miti sax na la demal géej <laughs> jërëjëf Massey jërëjëf euh, Baye kon mu mel ni loolu leer na nañ waaye ma Massey balaa ñu lay bàyyi ndax li nga hmm. bëggoon wax ak Baye Ndiaye wax nga ak moom ndax atteindre nga sa objectif. waaw justement rek man dama bëggoon rek maanaam mu mu laajte rek balaa mu koy utiliser. xam nga mhm. nit tamit information tamit bu ñëwee mën nga ko gëm comme mën nga ko bañ a gëm comme mën na nekk dëgg mën na bañ a nekk dëgg li ci am solo rek mooy vérifier ko loolu rek laa bëggoon mu mu def ko. kon mu mel ni di nga bokk ci ñi nga xam ne du ñu digal kenn ne mën naa jëfandikoo ndoxu géej ne ko mën naa faj wala mu mën a aar. Ah. li nga xamante ne oh. moo di Covid 19. ma ni mën na aar ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax ñu jéem a rek wëyil ak nga xamante ne moo di suñu euh, invité ba tey mu mel ni mi ci euh, ligne bi allo euh, docteur Edmin Diatta mu mel ni yaa ngi déglu kon auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi dugg boobu ba léegi di participer di joxe seen xalaat euh, lu jëm euh, ci euh, mbir mi mu mel ni kon gis nañ ko boobu ba léegi xibaar yi nga xamante ne dafa nekk ay xibaar yu warul di mbas mi duggee ba tey mi ngi wéy nit ñi di gëm li nga xamante ne donc mooy li ñuy jot ci ay message te du ñu xam la message yi jógee ndax ay message yu dëggu la déet wala waaw boo doon wax docteur tey li nga xamante ne place boobu la pharmacopée daal di occupé ci pàccum Covid 19 bi lan lay doon. par rapport pharmacopée ngay wax noonu yaakaar naa ni ñoo xam te ne les en la matière surtout le les les ak yeneen yi war nañ def plus de recherche gis nañ ni euh, gars yi demoon nañ ko benn Espagne naan artemisia baax na si Covid bi et cetera surtout soo demee Madagascar gars yu bëri foofu lool si loolu lañu ñu gënoon euh, basé mais bon yaa sa dégg bi mooy. Covid bi si Covid bii nii bu ñu nekk nii y' a beaucoup d' yoo xamante ne gars yi jotuñu ko en réalité donc y' a beaucoup de d'études yoo xamante ne gars yi war nañ ko defar mu gën a nu mu gën a poussé pour ñu xam na lan lan lan moo mën a faj ko coronavirus wala moo ko mën a moo moo ñu moo la mën a fagal si études yooyu noonu fii nii suñu pharmacopée surtout Afrique sax c'est un peu riche mm-hmm. donc gars yi war nañu def de telle sorte que ñu def waaw au fond surtout ñun bon quand je dis am na xam na ñu bëri dañuy naan médecin et cetera mais am na médecin am na ñoo xam ne qui s'occupe carrément de so ku nekk spécialité o xaman ne yaa ngi comprendre mais ñooñu tamit war nañ pousser les les études pour ñu xool fa la ñuy mujjee ko jërëjëf docteur moo gën a am solo mu mel ni par contre population bi tam nga jàpp mhm. nii à chaque fois suñu la nee demal jënd demal jël xobu benn pour nga naan et cetera vérifier information bi bi leer la nga dem jël xob bi nga naan loolu tamit benn beneen risque la parce que mën na lay indi ay gaal yu bëri mu nekk lu am solo ni ko docteur waxee noonu la amee risques yi bëri na lool ci jël loo xamante ne xamuloo mën loo ko dosé li am solo daal mooy lii nga xamante ne moo di Covid 19 bi am ci li nga xamante ne moo di baatu spécialiste yi daf ci am solo bu baax a baax yéen a ngi woy di déglu seen émission diisoo ngir aaru tey jii nag ñuy waxtaanee ndax ndoxum géej mën na euh, faj wala aar li nga xamante ne moo di mbas mi di Covid 19 donc benn numéro rek la di 77 4. 424 94 73 di numéro boo xamante ne numéro whatsapp la ngeen mën ci envoyé message ñu mën leen a mu mel ni sax euh, am na kenn ku ñu woo mu nekk ci ligne bi allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si maa ngi lay nuyu naka nga tudd ak fan ngay wootee. waaw man maa ngi tudd Mati Sarr bàjjenu gox en plage. Mati maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay koddu. mu mel ni yaa ngi jërëjëf di rafet di rafetlu émission bi di leen wax ni jaar naa foofu comme invité. dëgg la. waaw loolu moom ma ci neex nga toogoon fi en tant que spécialiste tey nga dugg en tant que auditrice mu mel ni kon yaa ngi mm-hmm. doon déglu li nga xamante ne mooy épisode euh, fukkeel bi ak juróom-benn ana lan nga ci jàpp ak kan nga bëgg a waxtaanal. waaw maa ngi waxtaan ak euh, Baye Ndiaye si première chaîne bi. première chaîne bi. waaw kon war nga mën a xam principe bi léegi bu ñu la ko joué ndax ñoom ñëpp ñu ngi nii toog dend ak man bu ñu joué ba yegg fi nga xamante ne nag mooy fi la soxal danga naan leen stop su ko defee ñu taxaw nga daal di mën a jokkoo directement ak nga xamante ne moo di Baye Ndiaye ndax mën naa nekk. mën naa nekk acca leen kon ñu dem. waa Baye Ndiaye. waaye kii du Ndoye. waaye Baye Ndiaye naka waa Ndoye aw la waa xelal lu xew noor. waaye xanaa wut fu mu rek walaay walaay. waaye xama rek fan yi xamaa géej gi maa ngi demoon campagne am naa fa ñaari weer xam ak lu tekkay ndoy ba tegu la foofu ñu teel waay waay lu ma doy ñetteel man ñaari ma yor rek doy na di <laughs> naka dama coonoy sant rek alhamdulilah waa ndoy xanaa dinaa ma may ndaawal ah tey moom bul wax dara di nga am ndawal ba doyal kay moom kay booy jibi di nga yóbbaale ndawal incha ah, baax na naka dama coonoy sant rek alhamdulilah alhamdulilah maa yaa ngi si jàmm xama rek fan yi moom corona bi solal ñu witti witti witti witti ba nga xamante ni moom fi mu toll nii kenn mënatul dem fenn walaay walaay. mbaadu walaay waaye nag moom xam nga ñun ñun dañ doon dégluwul. ah walaay ñun bu ñu dégluwoon. ah walaay corona jóge def bu yàgg a yàgg a yàgg a yàgg. waaw loolu la si leen pexe yi. xanaa boo doon ndoxam géej gi dafay faj coronavirus. ndoxam géej. walaay walaay dafay faj coronavirus. naka ka def. xaya gis nga gis nga ndoxam géej gi boo ko jëlee. ah nga serante ko ci ñetti yoon. waaw walaay bu dee fekkee corona dafa nekkoon ci yow. ah dañ na bu fekkoon duggagul dootul dugg. dama ne jeex na tey walaay walaay ba maa dem ba seet si butéel. allo ma njaboot ah. stop. voilà kon Baye bari bari kii Soda Bati. stop. bari waaw Soda Bati. bari xaba xaba ba jaay bi li ma loolu bu fekkee ne jëfandikoo nañ ko. walaay walaay coronavirus dina fi jóge. waaye dama laa sant di la gërëm. Mati man damaa yaakaar ne nag yow moomu yow yaay yokk corona. si lan noo. waaw yow moomu naan ndoxum géej ku ko sarax ndikoo ñetti yoon corona jóge fi. waaw dama yaakaar ni yow moomu. yaa yow ñii may corona kër mu dëkk ci réew mi. Ah. yow ci nga bokk. parce que ba àdduna sa soo ba léegi ñun ñu ay docteur de te liggéeyuñ ci santé mais d'après information yi ñuy jot ak suñuy sensibilisation. waaw ndoxum géej masul faj corona. ndax defe naa bu fekkoon ndoxum géej day faj corona kon kenn du dem kër docteur ndax yàlla may nañu géej macha allah. Eh, ndooy ndooy bàyyil kii maa kaa tontu ndooy aw bàyyil kii maa kaa tontu mati waaw la tax baa ko sog ko saa ina la demal géej waaw la tax ina la ba say bit bët la mitiw apollo ina la demal géej corona ak kosa kosa du benn waaye mati léegi lan bëgg a wax Baye Ndiaye xanaa xamul ndoxum géej fa mu fekk dara la fa bokk rek da génn si biti sa wax jooju ngay wax ah. du lu wér wérluwul te kenn waru ko véhiculer comme message kenn waru yi wax lay wax nga wan ko yow dong mu ci yow dong oh. du lu ñuy jërëjëf Maty jërëjëf Baye Ndiaye mu mel ni kon jokkoo nga directement ak ki nga xamante ne moo di Baye njaay ndax mën naa xam ne ndax li nga bëggoon def nga ko moo di wax ak ak Baye ndax sa objectif jot nga ko merci beaucoup message bi ma bëggoon lancer rek lancer naa ko pour wax ni ndoxum géej gi faj corona. mu nekk lu am solo tey jii euh, bu mu mel ni bàjjenu gox nga mu mel ni di ngeen tase lu bëri ci ñu mel ni Baye Ndiaye ak ñi ñuy waxal ñoo xamante ne dañ leen di jox ay xibaar yu warul léeg-léeg a ngeen leen di fexe ba di leen delloo si waat ndax kat di fàttali rek ne émission bi diisoo ngir aaru déconstruire xibaar yu warul yi moo ko tax a jóg. gis nga mais du ñu tàyyi du ñu sonn ci di leen gàgganti ak di leen wax li lii am Baye Ndiaye moom ak ay moromam fees nañ dellu ci dëkk bi koñ boolem am nañ fa kër boo dugg am nañ fa waaye ñu bañ a yi rek di lancer suñu message heure bu ne dëkkee sensibilisation rek xëy na bis dina ñëw corona abal ñu. jërëjëf en tout cas loolu la ñu bëgg mu abal ñu jóge fii ndax nit ñi mën a am jàmm bu baax a baax ñu koy jaajëfee bu baax a baax moom Maty Sarr nekk bàjjenu gox nekk relais communautaire waaye itam bokkoon ci semaine yee ñu weesu mu nekkoon invité comme ni ko docteur Diatta nekkee tey allo docteur mu mel ni yaa ngi ñuy déglu ba tey. oui Kodo mu mel ni dégg nga ko sànq nga nekk docteur généraliste mu mel ni leen léeg ngeen nekk en contact direct di liggéey sax ak lii ci bàjjenu gox oh, tey ndax nga gisee cohabitation bi am entre les spécialistes yéen ak bàjjenu gox yi nekk ci gox yi ko gox goxaan yi. def naa ni euh, surtout soo demee si zone yu gën a nag biir Sénégal soo fa demee da nga gis ni bajenu gox yi ñoo yor yu bëri surtout la communication surtout wàllum santé wàllum lu bëri euh, même dans dans beaucoup de dans beaucoup de zones man man man moom naa presque campagne médicale et tey rencontré seen bëri bëri bëri fii nii bu ñu doon def suñu campagne sensibilisation rencontré gis naa ni ñoom ñoo yor communication surtout ba ñu bëri parce que gars suñu ñëwee fee ministère ñu wàcc ma ñoom ñoo nekk en contact direct avec donc ñoo xam ne ne ñooñu war nañ leen gërëm di leen sant tamit di leen doolal di leen dool ñu lay jaajëfee bu baax a baax yow moom nga xamante ne yaa di docteur jaata di fàttali rek ne diisoo ngir aaru dafa nekk projet bi nga xam ne moo lëkkale Africa Check ak ki nga xamante ne moo di Théâtre for Change lépp ci jàppandal Google News initiative ñu di ko amal nag altine bu jot fii ci rajo Oxygène waaye itam ci Zeno ngeen mun ko suivre rek daal di mën a joxe seen xalaat bu baax a baax ci li nga xamante ne moo di li nga xamante ne moo di mbas mi waaye itam ci xibaar yu warul yi nga xam ne moo wër euh, àdduna wërngal këpp Sénégal itam bokk ci yooyu la réew ndax bés bu nekk ñu jot ay message soit ay message écrit ay vidéo ay photo yoo xamante ne rek dafay rek di gën a euh, ëlëmal euh, askan wi di leen dem ba sax di leen dugal ci guuto boo xamante ne kenn xamul lu mu doon docteur mu mel ni kon mi ngi noonu tey ji bu fekkoon ne am nga message booy lancé message boo xamante ne rek dafay euh, recadrer le débat dafay gën a tax ñu gën a bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy xew message boobu lan lay doon. maa lay gërëm encore di la sax di gërëm auditeurs yi yëpp ñëpp ñu woote ñëpp ñu nekk mbow si maa euh, message bu may lancé c'est de manière générale parce que def naa constat gars yi nit ñi léegi soo soo duggee si WhatsApp par WhatsApp surtout les réseaux sociaux soo jëlee benn information au lieu nga jël temps pour vérifier l' information dangay gis nit ñi di partager di partager di partager diffusion large diffusion message bi di dem di dem à chaque fois benn information man mun naa créer tey ma diffuser ko ma envoyé ko keneen diffuser information donc na zone surtout la zone sans parce que jeunesse bi surtout moom mooy bon je peux directement la zone gars yi war nañu xoolaat lutter contre la désinformation lutter contre les intox parce que intox yi bëri nañ et loolu ça entrave la bonne communication donc day tax nu ñu nu ñu naroon nekk efficace duñu ko duñu mauvaise communication boobu mauvaise communication lu ko waral le plus souvent surtout les intox euh, ku nekk yeewu nelaw yeewu naan corona soo defee lii soo soo naanee dox la di nga wéer keneen ki yeewaat naan soo naanee doggee doo ko am expliqué si loolu yëpp war na mën a jeex. war na mën a jeex mu jeex la ñu bëgg docteur ñu lay jaajëfal bu baax a baax di rafetlu sa intervention mu mel ni ni nga ko defee rek noonu la tey jii nag docteur jaata nga doon wuyoo waaye docteur jaata boo xam ne séeréer lay doon donc mooy li mu lay jox ñu lay jox <laughs> kon dig daje euh, beneen bés dinañ la soxlawaat bu baax a baax en tout cas euh, yëf yi euh, am na solo bu baax a baax mu mel ni balaa ngay dem docteur bëgg naa ngi déglu beneen auditeur bi nga xamante ne moo nekk ci ligne bi comme ça nga daal di mën a tàggoo ak askan wi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, soxna si maa ngi leen nuyu. maa lay fay. ndax mën naa xam tur wi nan la ak fan ngay woote. Fatou Dieng Yaraax. Fatou Dieng Yaraax. Ah, ndax suñu faatu la du madame madame Ndiaye. waaw madame Ndiaye la. ah yow dégg la dina ma neex. <laughs> yow moom dañ lay wax nga dal ak jàmm. déjà dal nga ak jàmm ndax dafa mel ni yaa ñu indil coupe bi. waaw indi nañ ci ñun njaayee ne kanam la jëm da ngay teg foofu sa baaraam loolu xam naa ne hors antenne lañu koy yeggalee. incha allah kon mu mel ni yaa ngi doon déglu suñu épisode 16 bi donc di waxtaanee ndax ndoxum géej mën naa faj corona virus épisode bi 16 bi déglu nga ko ba noppi ana fan moo la ci gën a intéressé. waaw fi ma bëgg a mooy fi nga xamante ne fa la Binta doon sol ba daal di waaw fi nga xam ne ba ma sarax nde ko ndox mi ci la daal di dem ba tàggoo ak sagoom foofu moo lay neex kon benn rek la boo dégloo ba ñu jouer ba yegg si foofu rek danga nga naan stop su ko defee ñu dal di taxaw nga dal di wax directement ak Binta ndax mën naa nekk d'accord inchallah madame Ndiaye kon acca ñu dem sama papa moom man li mu fi indi xaw ma sax nan laa ko utiliser moom xaw ma sax dosage bi ñaata la waxoon man daal xaar rek lu ma neex rek ma def um géej bi Binta yow lan la lan bi stop waa kon mu mel ni mi ngi noonu boo nee stop rek dañuy daldi di bàyyi nga xamante ne moo di dem Ndiaye mu wax directement ak Binta. waa Binta kenn moo la wax ne ndoxu géej dafay dafay andi corona. sam moo wax dafay faj corona. dafay faj corona. non loolu bokkul ci li nga xamante ne moom lañ ñuy digal bàyyi leen loo leen dégg rek ngeen dem def ko loolu bokkul ci seen tool mi bokkul aussi ci li nga xamante ne moo mën a dindi li nga xamante ne mooy corona. sa papa moo ngi nii toog moom mi moo wax que ndoxum géej dafay faj corona. déedéet ndoxum géej ah, mu ko wax maa ko wax ba taxaw def ko ñu ko defee du noo corona ku ko amee da ngay dem ci fi nga xamante ne mooy këw docteur ñoom ñoo la mën a jël en charge wax la nag ak naka la nan nga war a mën a def ba li nga xamante ne mooy jàngoro bi mën a génn ci yow mais ndoxu géej musul faj corona. Fatou sama papa chaque jour ma wax ko day dégg ay information rek di ko indi fii Binta moom moo gën a dëgër bopp wax naa leen ndoxu géej bi bu leen ko utiliser ñoom gëmuñu ma su ma waxee ñu naan ma ay tubaab nga wala dara xam nga moo ngi nii léegi faatoo ngi nii yéen a ngi dégg kon li ma la leen doon wax dëgg la moo ngi nii def ko ba pare affaire bi indi ko ay complications. jërëjëf jërëjëf kenn moo la mën a wax nii ak nii dañ mën a def ba jàngoro bi jógee mm. mooy ki confirmation rek ñëw di ko di ko lay jaajafal bu baax a baax Fatou Dieng waaye balaa ma lay tàggu ndax li nga bëggoon am nga ko ak Binta maa ni wax ak moom directement ndax atteindre nga sa objectif. waaw defe naa dégg na li nga xamante ne moom laa ko wax ak li ko soxna wax. kon jàpp naa ne doo bokk ci ñuy digal kenn ne na utiliser ndoxum géej ndax mën naa faj wala mën na ko aar. ci coronavirus déedéet parce corona. jërëjëf jërëjëf madame Ndiaye kon euh, ñoo ko déggandoo docteur Diatta mu mel ni kon dégg nga intervention dernière auditrice boobu nga xamante ne moo dugg léegi euh, di madame Ndiaye mu mel ni kon ñu ngi au terme de l'émission ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di la jox kon dig daje beneen bës ci beneen ponk dinañ la soxlawaat di rafetlu sa intervention am na njëriñ ñu lay jox kon dig daje beneen bés jërëjëf jërëjëf. merci ko bokk. merci à jërëjëf jërëjëf docteur Diatta ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne donc euh, participer nga ci li nga xamante ne moo di émission euh, tey bii nga xamante ne moo di épisode. 16 ñu koy jaajëfee moom Omar Cissé di jaajëfee itam ki nga xam ne moo di Massey Ndiaye ki nga xamante ne moo di Mathi saar di bàjjenu gox naka noonu Fatou Dieng mi nga xamante ne mooy dernière auditrice bi di jaajëfal bu baax itam nga xamante ne moo di euh, docteur Diatta di fàttali rek laaju semaine bi mooy ana lan ngeen di wax ñi nga xamante ne dañu gëm ne euh, ndoxu géej mën naa faj wala mën ñoo aar ci euh, Covid 19 ngeen mën a continuer participer donc ci. ci euh, boobu la laaj euh, à travers donc réseaux sociaux yi nga xamante ne yu Africa Check la euh, bés bu jot rek mën ngeen continuer en tout cas di wëyal di daal di répondre ci question de la semaine boobu di jaajëfal bu baax itam ñi nga xamante ne ñoo di équipe bi nga xamante ne ñoo fi teewoon tey jii di Cheikh Ndiaye di Khady Fall di di Mambo Gaye Seynabou Diop Yacine Diop ak nga xamante ne moo di Mamadou Diol di jaajëfal ki nga xamante moo di coordonnatrice su émission émission bi eh, di ki nga xam ne moo di eh, Kumba Silla naka noonu eh, Samba Jalimba Bacci waaye comme niñ ko def rek saa su nekk nag miin nañ ko liy neex mooy man mii maa nekk ci présentation bi di jëlaas nekk ci partie technique bi waaye itam Fallou Sow nga xam ne mooy assurer réalisation bi xanaa rek ñu joxaat képp kuy comédien te teew ak man fii ci studio bi man mii di ko dulum di leen ko présenté saa su nekk ñu daal di présenté waat waaye itam tàggoo en même temps ak les auditeurs de euh, salaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye ma nekk acteur principal bi di Modou ci épisode yi merci beaucoup. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Khady Fall Diaw nekk mère ci PS bi merci maa ngi tudd Seynabou Diop maa nekkoon Soxna ak Diige. salaamaaleykum man maa ngi nekk euh, Binta tamit maa nekk ñu waay maa ngi nooy waa Oxygène ak waa Africa Check man la ma Mbodj Gueye la Baye Ndiaye la joué rôle Pape maa ngoo daal jara boot jarabootu à ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog ci seen biir kër di suivre bile émission ñi di ko suivre à travers la 103.4 ñii ci Zeno euh, ñi leen jox dig daje altine bii di ñëw ci 17e édition bi jàngeen jëf